li xaada joodan bi sama yuusilu xatti may yuridu tarbiya wax def nga ko sëriñ wa daan yow amoo morom ñu lay ñaan subu yàlla ñaan ñu lay ñaan subu yàlla ñaan ñu lay ñaan subu li lay ñaan xam nga ko faal ku lay soo faal ñu namoo subu la sëriñ jee بجوادان زغ لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا وتوالى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا لا لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا لا إله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 illallah la ilaha illallah la laru yaay waaye bokk maam Xaali Baaba yàlla def itam ànd bi man ñu lool ndax maam xaali waajur la ci maam subaabu ñu ànd nag ànd bu jaf ndax ànd bu dëgg ànd boo xam si ni bëgguñu ci lu dul liggéeyal subaabu liggéeyal maam xaali yàlla na yàlla nangoon lépp loo xam nas nañ ko ci ci daraja Cheikh Khadim gan ñooñu nag su fekkee ni yàlla def na ñoom ñu ñëw fi bala ñoo mën a waxtaan ci dara dañuy jiital suñu waxtaan ak ñoom ndax ñi ngi jéggul waaye yàgg nañ fi lool ba tax na bala ñoo jox sëñ Modou Mamoun dañuy ñaan rek ñu may ñu ñu ñoom ay kàddu santante gërëmante yeewi leen ñoom ndax yàgg nañ fi te yàlla def itam fañ jëm yàlla defal leen jàmm bañ àgg fa fekk fa jàmm te yàlla def jàmm Sénégal yëpp kon li ñuy tàmbali rek mooy jox leen ñoom ñoom gan ñi ñu waxtaan wax seeri tànk ñun tam ñu tontu leen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 waa kër maam Youssouf Babou ci kàddu Baye Bachirou Diakhoumpa li nga xam ne moom la yàlla dogal mu nekk ci boppu kër maam Xaali Baba Diakhoumpa moo ñu yabal fii ngir ñu teewal ko ci bisub maamam bu tedd bi nga xam ne moo gan gi nga xam ne ci la Cheikh Bamba Xaadimu Rasuul gane si woon maam Cheikh Anta borom gaawaan ñu di ci ñaanal maam Youssou Babou loolu day wane ne rek maam Youssou Babou ak maam Cheikh kenn rek la boobaak léegi Baye Bachirou mi ngi ñuy soññ ci nu ñu mën a waajale bis bi nuñ ko waajale yi doyut mu yëkkati woon kàddoom teg ko ci loxob jëriñam ji ko nekkal ci réew mi di rakkam di suñu bàyyi Serigne Mamoun Diakhoumpa mu jiite délégation bi waaye ñu ànd itam ak suñu bàyyi bàyyi Makhtar Diop di doomi maam Serigne Diop Caayaako mook Mamadou Makhtar ñu nekkoon ci keppaaru Cheikh Mamadou Bachir naka noonu itam ñu ànd ak suñuy bàjjan buñ ci tuddee bàjjan ami jaxumpa moom Mamadou Bambi ak bàjjan Fallo jaxumpa mu yóbbaale ñëpp naka noonu sa taati maam jaxumpa yi ñu jigéen ñi soxna ndey jaxumpa jiite leen ñu góor ñi sëriñ Ismaïla jaxumpa ñu àndandoo ak seeni rak ñu ñëw teewal Baye Basiiru Jaxumpa ci bis bi xëy na sax duñu ko man ndax yéeneem ci bis bi rëy na lool ba waxtu wu nekk day soññee kon Baye Fàllu Baye Maamoun daf ma jox kàddu Baye Bas muy ay kàdduy cant yoo xam ne làmmiñam mën na ko tudd lott na ci tudd ko ndax boppam rekk moo ko ci doyal mu ngi lay nuyu bu baax yaa njabootug maam Yuusu Baabu gépp tey beral nuyoo sama baay waaye di sama nijaay muy bàyyi sëriñ sugu mii toog sama baaya ndax sëñ jéer ak jaxum ba ñoo bokk lépp soxna tàggat sugu ak fan Dikam ñoo bokk bu Dikam a Sidi ki melni xaali baba ki melni jeri kon sama bayi. la Binta may sa sugu ak sëñ jere bokk baye mo melni say gumbalé mo melni sama wayjuru jigen kon sama nijaay ga ñi nga lay nuyu bu baax di la jox sa way di nuyu bu baax it sëñ Modou Mamoun Amar di ñaanal di ko ñaanal suñu borom guddal aw fanam te wëral ay cëram xam-xamam Baye Serigne Baye Bass dafa wax ne mënu leen a fay mënu leen a sant da leen di ñaanal yàlla rek suñ borom bàyyi leen fi ba li ngeen yéenee liggéeyal maam Youssou Babou ci mbokk gi ngeen def ko ndax wax dëgg yàlla rafetal ngeen ko lool dox ngeen ko na ngeen ko war a doxee mën naa ne buñ jógoon di leen jéem a dab ñu njabootug Cheikh Xaali Baba seen pënd sax duñ ko séen ci yitte waaye nag danañ jéem fu ngeen teggee seen tànk ñu teg fa suñ tànk te gëm nañ ne bu boobaa bu ëpp du yées suñu maam yooyu liggéey bu rëy boobu nga xam ne bi ko Sëriñ tubaa liggéeyee te kenn fekk ko ca waaye bi mu ñibbisee woote ñoom ku ci nekk da ngaa bàyyi la nga nekkoon gàddaay say dëkk ñëw jox sa bopp Sëñ tubaa xam ne moo am njariñ lu amul lor liggéey boobu mënu liggéeyaloon yéen yàqu leen kon nag ñun ñi nga xam ne ñooy ay tuut tànk di topp ci seeni tànk wan ngeen ñu aw yoon wan ngeen ñu ne kat yàlla na yeex fii kenn saxu fi waaye suñ demoon ba gisatuñ leen war na noo mën a wëyal liggéey bi war na noo mën a wëyal dundal bokk bi ndax dara ëpp ko njariñ te njabootug maam Yuusu Baabu ak njabootug maam Xaali Baaba dëgg la askanu naaru Kajoor benn lañ waaye ñoom ni ñu duggante genn bokk gu ñu duggante amut Baye Bachirou mi nga xam ne moom la yàlla teg ci boppam kër Cheikh Xaali Baba Jaxumpa kenn mënu koo génne kër maam Yuusu Baabu bàjjan ami Jaxumpa kasaalika naka noonu njabootu Baye Cheikh Modou Bambi noonu njabootu bàjjan nday mu ni Jaxumpa Modou Maxtaar noonu kon njabootu maam Yuusu Baabu ak njabootu Xaali Baba Jaxumpa genn rekk kon nag ñi ngi ñaan ci barkeb sëñ Touba ci barkeb liggéeyam suñ maam yu baax yooyu suñ boroom téyel ñu bokk bi sàmmal nu ko ba fépp foo xam ne fa ngeen ko bëgg mu àgg fa rek nu àggale ko fa ñun ñi nga xam ne ñooy sëtaat yi ñu jéem a roy ci yéen jéem a xool seenu doxin jéem faa teg sunu tànk te xam ne kat àdduna moom saxunu fi li taxoon suñ borom wàcce ñu fi lenn rekk la dañu fee andi ngir pénénu mi ngi mel ne ku joteeg nit dem tribunal di layal sa bopp ngir set suñ boroom bako ko yonent yàlla aadama ak hawa tooñee looloo waral suñ boroom andi jamono andi nu fi ngir ñu war a mën a lay ba mën a jéggul suñ boroom ba wecc ngir bu ñu àggee ëllëg mën a mucc andi wuñu fi ngir lenn luxe andi wuñu fi li ñu fi indi mooy jaamu yàlla sax ci ndigali suñu borom bi loolu moo am solo bi li ci des mooy ku mel ne Baye sëriñ mii ak ñu mel ne ñoom ay ambassadeur lañ ci yoon wi ki démb rek ki nga xam ne mooy sëriñ Touba di Serigne Mountakha wàccoo na ak ñun ñaar la séq ak ñun def na ko digal la séq ak ñun ak tere digal nañu tere nañu lim ñu digal suñ njariñ rekk la suñ ko jëfee moom wàcc na wàcc na suñ ko jafut moom wàcc na kon nag képp koo xam ne mbooloom sëriñ Touba daje na boo fa nekket na nga leen fàttali digali sëñ bi sëñ Muntaxa yooyu ndax fu nit mën a nekk kat ndax dama dégg ci suba rek bi may ñëw am ñu wax ne sëñ Muntaxa tere yi tuubaa rekk la déedéet fépp fu mu murit nekk war nga koo def muy Touba sëñ Malick Lo dafa wax ne dafa am kuñ mas a ñëw ci sëriñ bi sëriñ bi ne ko noo tudd mu ne ko man ab jàmbur la bu dëkk njàmbur sëñ bi ne ko nit de fu mu mën a nekk lu mu wéet wéet mu nekk ca la ko yàlla digal bàyyi lam ko tere ab jàmbur la bu dëkk njàmbur waaye fu mu mën a nekk lu mu wettaliku wettaliku nekkul ca la ko yàlla digal bàyyiwut la ko yàlla tere du jàmbur dëkkul njàmbur xamal ko it ne ko fii moom fowuñu fëluwuñu te àjjana ju jàmm yàlla mayewut amu fi ko xam fu mu am demal wuti ko sëñ Muntaxa lim nu digal tere nga ko suñu njariñ rekk la te képp koo xam ne bu sëñ Muntaxa waxee nga ne aske yi wala bu waxee nga jooy di ko ñaanal gudd fan talam tere defoo ca dara la ngay wax man Moustapha Ngissal rek laa koy jàpp nañu xam ne àdduna ji saxunu fi te képp ku yaakaar ne guddi gu njëkk ci biir bàmmeel doo ci jaar lu la neex defal nañ gën a delloo suñu bopp gën a am pas-pas ba suñu maam yi amoon ñoom de biñ fiy jóge kenn ku ci nekk boo ko mérasee gaal gam fa bàyyi bu doon ci jamono ji boo koy euh, wàññi du mat treize mille francs kon luxe amul njariñ nañu dimbalante nanu yërëmante nanu ànd te yàlla tax te xam ne lii jariñi àdduna ak àllaaxira kat suñu borom teg na ko ci loxob Sëñ Tuubaa kum neex ak kum naqari waaye la cay maye lenn rekk la mooy am pas-pas sax ci njub jaamu yàlla sa borom sëñ Touba nee na li may def ci nit moo gën a gaaw liggéeyub ndey waaye duma ko def ci ku liggéeyul kon li am solo mooy liggéeyal sëñ Touba te liggéeyal sëñ Touba mooy jaamu yàlla maa ngi jéggalu bu baax kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullah bàyyi ba sant na bu baax a baax bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين نندي سنو خل دالنا سنو ياكار يوكنا ndax nit ki li gën ci mom moy mu mi ngi tambalé ci japp say bopp xam sa bopp mi ngi tambalé ci japp say té nun kat amunu no lijeenti bokk gi nunu bokké nar yépp nak li nga wax deug la ño bokk menn maam wayé kër yusufa ak kër xaalim dañ dañ ko kenn munu ko tagat ba li ñuy wax ni munu ko tagat ba tawtewul wayé kenn munu ko lijeenti ba xam nu mu bokkee ndax man mii di am caat su ma neexee bàyyi laay wax ca kër xaali laxum ko bàyyi xaali laay wax yéen ngeen ni maam bas mi nga xam ni tey moom la yàlla def ci bopp yoon bi moom noog ndeyam noo bokk bàyyi noog ndeyam noo bokk bàyyi mu ni sunu jarbaat ba pare doon seen jëwriñ nek seen karam di seen bay di seen mag kon bu lolou doxé talal leen loxo ngeen talal ñu loxo ak ñun di sonn ci ñun di dacc ci ñun luñu dajul ci yeen kon xamnañ ni ñun kat mak, dañu jur motax ñu seen kilifa waye gëm nañ ni seenu doxine ñun japp nañ ni mo gëna sax moo gën a wér ndax nit bu fekkee ni su ko mbokkam wooyee mu wuyu ko su ko laajee mu jox ko su woppee mu seeti ko deseratu ko dara te sama baay daf daan wax ni na ngeen xam ni day yéen ay jigéen ngeen jaboote te nee na jigéen soo bëggee ànd ak moom danga koy bàyyee la mu yor te loo am bokk koog moom nee na boo ko defee rek ngeen ànd te yéen ci yoon woowu ngeen teg seen tànk di ko dox kon njabootu Yuusu Babu gii ak njabootu Xaali Baaba jaxum fa genn njaboot la du ñaari njaboot kenn bas moomee di sunu jarbaat di ji nekk ci seen kanam bu dellusi woon fii itam day nekkaat ci kanam parce que bu ko neexee bu ñëwee fii nijaay lay wax bu ko neexee mu nu bàyyi kon nun noo leen ameel njukkal ndax njaareem sori na tey saa yu ngeen ñëwee ci ñun da ngeen fi toog toogaay boo xam ne bii danañ xool ci seen xar kanam yi xam ci ni yéen de ci seeni bokk ngeen ñëw yàkkamtiwu leen dara wutiwu leen dara ñun daal yéen yéen a ngi suñ gannaaw suñ leen nee def leen ngeen def suñ leen ne bàyyi lu ngeen bàyyi ba keroog ñu leen bi yewi rek ngeen dem ñibbi loolu nag loolu mooy loolu mooy dong mooy kilifa ndax kilifa du saa yoo ma waxee li ma neex doon sama kilifa soo ma waxee li ma naqari dootoo doon sama kilifa loolu du kilifa kilifa da lay def loolu la naqari nga def ko mu bayyi lolo lu la neex nga bayyi ko ngir yalla kon seigne Tuubaa mi tax nu and and ak seigne Tuubaa ñom ñu liggéey dañ nu ko liggéeyal ñun ñu ñew tok ni rek war ko jariño liñ ci jariñ nak moy jël suñu tank tek ko fa suñu wajur yoyé tegon seen tank jël bi ni ko dann wuti ko te bañ ko bolé dara tambalé ci sëriñ bi yam ci sëriñ bi bañ ci doli dara bañ ci bëgg dara lu nu am xamni ni sëriñ ko jox ñu delloo ko sëriñ bi nun day foofu la nu yaroon teg nu fa te fa lañ fas yéenee dem ba keroog ñu fekk ñu fi bàyyi woon kon jërë ngeen jëf sant nañ leen gërëm na leen sunu borom mi am ndimbal tey dimbali koo soob kal na nu boole dimbali ci barke maam Cheikh Anta defal leen xéwal yu kawe seen njort tànk yi ngeen fi ñëwee ba ba di dellu yàlla na ko sëriñ Tuubaa yàlla sunu boroom def aw yiw ci barke sëriñ Tuubaa bu ci kenn wopp lu ci kenn jaaxle lépp lu ci waay soxla yàlla na ko sunu boroom faj ci guddi tey jii ci barke maam Cheikh Anta ndax guddi gi mën na ko kon alhamdulilahi rabbil alamin jërë ngeen jëf sant man gërëm la. rahmatullahi taala barakatu ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax cant gi dañ koy tàmbale ci cant ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal maam Yusufa muy suñu jigéen ñi nga xam si ni seen dooleeg seen lépp dañ ko def ci maam Yusufa toogaay bu rafet bi ñu bëgg ma wis fa rek mo tax def ko kon yalla na leen sëñ maa wis fa fay seen yéene ci moom wax dëgg yàlla yéen togg ay ay mbanay mbanay mbana noppi daal di sangu ñëw nangoo toog ñun nii loolu wax dëgg yàlla Pastef rek ko man kon ñu ngi leen sant bu baax a baax a baax di ñaan yàlla defal leen jàmm képp koo xam si nekk nga fi jëf ci bis bi lépp loo ci jëf yàlla nekk jëf joo xam si ni yàlla da koy ful delloo si ko ci yéen ak seen njaboot sant nañ baax a baax ci yéen moo wax itam ni ñi ngi sant sëñ Fallou mi nga xam si ni yàlla def na moo nekk ci bopp bi ndax mooy kilifa gi waaye nangu ne kilifa gi doxinu kilifaa tam lay dox ndax ak yaatoom kon yàlla na ko fi yàlla yàggal yàlla na yàlla woyofal yan bi sant nañ ko bu baax a baax a baax a baax a baax yàlla na ko yàlla defal jàmm wax dëgg yàlla nangu na ak njaboot ndax ñun ñi ñëpp kenn mosu ko cee dégg mu nga kenn mosu ko cee dégg itam mu jooy lenn te ñàkkul ci sunu biir ndax ay nit rek lañu mën nañoo def lu noona waaye lépp xajoo na ko kon nag yàlla na ko yàlla mooy itam fay yàlla yàgg ko suñu kanam wax dëgg yàlla sant nañ ko baax a baax baax a baax ci taxawaayam di sant nag ñii xam ñoom lañ ko seqal li leen sante mooy loolu ngeen di wax ni ñun euh, maanaam naw ngeen li ñuy def ñun day yàlla xam nañ dañ leen a jàpp ay nawle addum nawle mooy xaali maam xaali ak maam yusufa mbokk ci boole na leen waaye tam dara ci boole na leen kenn ku ci may dem bàyyi sa morom amul kon ay nawle lañu rekk ay nawle nag mun la paase saa bu ngeen soxlaa ñu jóg suñ soxlaa ngeen jóg kenn képp su ñëwoon fii représenté na kër maam xaali kenn rek su ñëwoon représenté na ko kon su ngeen defee délégation ñëw jógee njaareem sant lañuy def yéen fi ngeen jógee muy njaareem ñun suñ jógee fi jëm ngaabu soriwul kon mën nañoo dajale booloo moo xam si mu dem ngaabu mën naa ëpp seen mbooloo waaye pas-pas bi rek moo am solo kon dañuy sant bu baax a baax a baax a baax di ñaan yàlla yàggal leen fi yagal and bi san nañ bax ci lolu ki nga xam nak mom lañu ñuy liggéeyal muy maam Yusufa ñepp xam nañ ni laq na cheikh al khadim nga laq na ngërëmal ki nga xam ci ni mom la andal muy mam Cheikh Anta dafa am tuuti lo xam ne suñ ko xolé ci jotaay bi rek xol xam liggéeyu maam Yusufa kii toog nii sëñ Fallou la ko tudde kii sëñ Basiiru sëñ Abdou borom dër bi loolu rek wane na ni moom ak njabootu bi yëpp sëñ ko jox loolu rek doy na parce que soo xoolee loolu rek ak ñi jiitoog ñëpp Modou Mamoun Baye Cheikh Baye Cheikhouna ñëpp ñëpp kër sëñ Tuubaa rek la sëñ Modou Moustapha sëñ Modou Moustapha alaaj sëñ Tàkko alaaj sëñ Tàkko sëñ Modou Mamoun sëñ sëñ Modou Moustapha sëñ Moustapha sëñ Basirou sëñ Basirou Fallou sëñ Fallou sëñ Abdou kon loolu mooy da wax nag ni kon moom ci lenn kon sant yàlla lañ war def sant yàlla googu itam wax dëgg yàlla moom ci boppam sant na yàlla bu baax baax ci ànd bi mu ànd ak sëñ Gaawaan ndax ku fekkee keroog bu mu génnee àddina fii wax ci sëñ Fallou wax kii di Youssoupha Babou de Cheikhal Khadim ca sanoo si ba tey jii muspee def lu naqari boromam képp koo xam dugg nga ci dugg duggoom bii yàlla gërëm na la te lépp loo xam defoon nga ko tey jii yàlla dana ko def dana ko dana ko def muy aw yiw ku doon ñaw la ku doon ñaw la loolu kay moom naa ci ñëw sax ku doon ñaw la kon dañu war a sant yàlla ci loolu ginaa loolu tam sëñ Modou Mamoun sëñ Abdou Lahat sëñ euh, sëñ Mbacke sëñ Abdou Khadir ñoo ko taxaw wax nañ ni maam Cheikh euh, sama nijaay Cheikh wax na ni bi mu xamee bi muy waaj da ko woo ni ko Cheikh mu ni ko Mbacke mu ni ko manket kat sëñ Gaawar ñëw na fi dama jël si maa ngi waaj nijaay Cheikh nee na loolu la ko wax daal kon damaa soxla sëñ Abdou Lahat dama fay daal dem dem sëñ Ablaat ba mu demee sëñ Ablaat la wax ak sëñ Ablaat kenn xamu ko génn ñëw bi mu ñëwee bi mu noppaloo dafa am ngelaw lu bari loo xam si ni. Hmm? dafa ne damaa gént war ataay sëñ Gaawaan. ne asubaabu mu ne ko mbàkk mu ne kaa mu ne si Modou Mamoun jox asubaabu juróom benn téeméer. asubaabu dem jox sëñ Modou Mamoun juróom benn téeméer ne ko sama bàyyi nee daa génn ataay sëñ Gaawaan mu ne ko booy ne ko wàcce nañ ko jël furk bu weex ba mu soloon jo asbaab ne ko na ko sol guddi altine talaata mu nelaw ak sa waaw lolu mom jokk mom sant yalla ginnaaw betam kere bu bi mu nelawee ngelaw lu bare bare bare lu andak taw da fe am sëñ Ablaat faay liko gor góor gi waxoon ak mom am fum don dem ngel lu reer lo ko bam ñew dar salam bim ñewé dar salam fek ñoon fekk ñëw di maam Yusufa mu dal ni moom yusuf Yusufa ci boppam moom moo indi ba fi ndax la mo waxoon faay naa ko ci ñi nga xam ñoo dugal maam Yusufa ñoo ko jébbal boromam moom ak sëñ Moodu Maamun la kon loolu wane na rek maam Yusufa amoon na cër te ku ne xam nañ tam maam Yusufa diggante sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ak sëñ Fallou dox na ci dox bu rëy rëy rëy lii may wax tam sama nijaay Cheikh moo ma ko nettali nee dafa am benn bis sëñ fallu woo maam Yusufa waxtaan ak moom ni waxtaan ma la mu ne ko. wol cheikh mu ko da nga su ko woy dina ñëw mu ne ko ah, woo ah. ma ca mu ne ko danal wol ma ko bis fa neena na bi mu ñëwee fekk seen cheikh dara xudu mu tok mu ñëw mom banam ne wuy sa bay seen cheikh solo li dal moko fu ñëk bi mu ko Fall da koy ah ji nga de nit ñi dañuy wax rek dañuy wax as dañuy wax rek waye cheikh dara neeku ci mom cheikh da ngi ni tok te loolu wane na ni ma bis fa su fekkoon ni ni doon wax man na am su woy seen cheikh sëñ Cheikh du ñëw waaye maam Ismaël da ko ne yónni ma ca jumaa jiitam sama nijaay wax na ni biñ koy defar xaalis bi nga xam si moom lañ jële woon ci miraasum ku tedd ki sëñ Modou Moustapha da koo dénkoon sëñ Gaawan sëñ Gaawan denc ko dugal ko ci banque bi biñ demee ba bëgg a tàmbali liggéey jumaa ji wax nañ ni ñu yónnee sëñ Gaawan laaj ko xaalis bi sëñ a dem ci banque ba ñu ne ko suñ la joxee xaalis bi suñ la joxee li nga dugal ci banque banque bi daanu mu jaaxal ko lool mu waxtaan ceeg maam Youssoupha maam Youssoupha ni ko baa ma dem ci sëñ Moustapha ba sëñ Modou Moustapha bi mu ñëwee waxtaan ak sëñ Modou Moustapha ni ko lii ngay liggéey du benn liggéeyu benn fan du ay at da ngay laaj ñi jox la par tuuti lu ñu fondation su fondation jàllee nga laaj leneen di laaj leneen ba ba muy kii mu ne ko ndax su ma ko defee dañ ma ko jox mu ne ko waaw soo ko defee sëñ gaawaan na ko dana ko lijjantee noonu mu def noonu ñëw saa bu sëñ gaawaan soxlaa saa bu sëñ Modou Moustapha soxlaa day yónnee sëñ gaawaan sëñ gaawaan yëkkati la mu jox jox sëñ maam Youssouf maam Youssouf yóbbu ko ba liggéey bi mën a dem te taxawul te loolu lépp diplomatie boo xam si maam Youssouf amoon na ko moo tax loolu yàlla def ko kon yàlla nañu yàlla fayal maam Youssouf baabu yàlla nañ ko yàlla fayal lii may wax rek damaa bëgg nag ñu xam ne ñun ki ñu am ku ci jàpp doy na sëkk ku jàpp si maam Youssouf baabu doy lii ñu koy def itam nañ ci gor gor ta xamni liggey la bo xam si ni ku ko liggéeyal liggéeyal nga señ gawan liggéeyal nga sewra liggéeyal nga señ tuba kon nañ gor ci taxaw ci liggey bi liggey bi liggey la bo xam si ni bañ ko tambale ba léegi itam ñi ngi sant yalla képp ko xam duga nga sa sa sa xam nga ba xam yok nga bu yok ko kon nañ góorgóorlu ci liggey bi ta xam itam ni ki fi nek di señ Muntaxa kenn wul ni moy señ tuba kenn wul ni señ tuba ta nit su fekkee da nga am koo xam si ni ñëpp ko bëgg muy dox doxin woo xam doxin sel sell doxin sëñ Touba dëkk bii di Touba lu mu ci tere lu lu jaadu la Touba maam Cheikh Ibrahima Fall dafa newoon fii ci fii ci fii ci ci Mbacké ni Touba ay sëglu man du ma fii la nekkoon maam Ali Fall Mbawar moo nekkoon fii ci Paline nekkub daanukat di doxantu yi dem di siyaare Touba mu mujj ma def fa mu nekk ba mu fa defee mu nekk Baye Fall yi si ko fa waaye ñoom Baye Fall daawu dëkk Touba Mbacké gi leen daan dëkk den daan Serigne ndax dañ wax serigne Tuubaa sang la ñun ay jam lañu nañ nek fi ci ngàllo gi mom mu nek fa kon ñun ñi fi xam nak dañuy ay talibé nañ japp ne lii mu ñuy tereel suñ rek la te nit ki ku amul kilifa jine ak safan ba nek sa kilifa yalla fi yàlla bàyyi sëñ Muntaxaa ba liggéey bu mu bëgg a liggéeyal maamam ja yalla agalel ko ko ci jam ak salam bam sos yeneen liggéey liggéey yu dul jeex ñun ñi de ñi ngi ñaan nek ay talibé top ci ginaaw serigne muntaha ndax sunu maam ni mu topp woon ci maam sëñ ga sëñ gaawaan ñun meekaa moom noonu rek asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu barke Cheikh Khadim kon ñu jox euh, sëñ bon nag ñu nga xam ne ñooy waa kër xaali ba joxumpa dañoo bëggoon a dellu léegi bon dañ leen a war a ñaanal ndax yitte yi dafa bari ca dëkk bi dafa xat ñu dellu ci yitte nun ñu continuer suñu waxtaan ba fajar incha allahu taala bon nag ñu ñaan sëriñ bi mu defal ñu ñaan rek yàlla def ñu fekke ko ay guddi guddi nag ni si déwén ñu fekk waat ko ca kenn bañ a manqué ci nun yàlla fajal ñu ràgg-ràgg yi dimbal ñu saahir ak baatin moom mu yor ndimbal mu dimbali ñu ba jox sëñ bi rek mu defal ñu ñaan ba nag sëñ bi nga def ñu ñaan ko <laughs> bismillah idan li man li xaada joodan di sama yuusilu xatti tarbiya bandeira B.